madame Thiam Ndeye Assou Diawara infirmière au centre de santé de Nioro du Rip. ah macha allah xanaa kontaan rek euh, parce que action yu mel nii moom euh, franchement dinay baax di am surtout ci bërëb yu mel nii nga xamante nii daanaka ñi fi nekk euh, dañuy tiit sonn ba sax des fois du ñu tala lekk macha allah ñoo ngi leen di gërëm. ñu gën a continuer di def action yu mel nii rek parce que comme niñ koy waxee rek ci diine l'islam nit or ba ngoon nga jox ko benn tàndarma sax tiyaaba la nga yëkkati lu yem ni ndogu jox ko mu lekk ba biiram fees loolu moom sant yàlla la donc ñu ciy lancé appel képp koo xamante ni mën na ko mu ci bay waaram euh, muy association muy nit muy ke n'importe qui mën na ci euh, jaamu yàlla maa ngi tudd Babacar Soxna nekk le président du mouvement Espoir du Rip maa leen nuyu yéen ñëpp nuyu aussi personnel bi nga xamante ni tey ñu ngi fii si hôpital bi di nuyu madame bu baax a baax waaw action bi mën nay wax ne tey jii nii lii moom suñu xalaat la ñun waa mouvement bi parce que dañoo toog ñu xalaat ne weeru koor tey war nañoo mën a def ay action sociale yoo xamante ni tey war nañ si mën a dimbale ñi nga xamante ni tey seen loxo jotu see ginnaaw wala aussi ñi nga xamante ni tey soxla nañ jógu si moment de ramadan bi malgré weeru koor bi gis ngeen ni ñu ko xamee métti na lool yenn mbir yi ñu bëri dañuy soxla ndogu surtout genre hôpital wala ñeneen parce que am na ay gan nga xamante ni tey ñu ngi fi ñëw raison pour laquelle ñu ciblé woon tey hôpital bi fii nii pour ñëw indi fi ñu ndogu pour partager ko ak ñi nga xamante ni tey suñu mbokk lañ wala aussi suñuy yaay la ak suñu mag yi nga xamante ni tey ñu ngi si hôpital bi fii nii. waaw ren la deuxième édition ñu ngi koy def daaw defoon nañ ko cette fois ci ren fii lañ ko defee waat incha y a des gens yi nga xamante ne tey fi comme membre yi tey dañuy def ay cotisation chaque fin du mois mais aussi activité bi bu ñu demee ba ñëw nii ñun ñëpp dañuy génnee suñu xaalis ñu collecté ko ñu teg si table bi pour aussi ñu mën a mënee activité bi mais aussi y a des nga xamante ni tey tamit jàpp nañ si comme tey journée bi amoon nañ ko nga xamante ni moom lañ ko parrainé mooy Aly Thiam doomu Nioro moom nga xamante ni suñ grand frère la ba nga ko waxee da si kontaan trop nee na pare woon na pour jàppale ñu trop trop te aussi jàpp na si journée bi Aly Thiam ñu koy remercier davantage aussi madame Mariama Diallo mi nga xamante ni tey mooy marraine bi moom aussi moom lañ tuddee mooy yaayu mouvement bi daal donc moom tamit jàpp na si bu baax a baax a baax a baax a baax di ko remercier davantage. bon dama jàpp ne lii ñun ñëpp war mën a def budul man sax wala budul waa mouvement bi sax kenn ku nekk war naa mën jug tey si weeru koor bi nga génnee dara pour nga dimbalee ko nit parce que weeru koor nekkul leneen lu du jaamu yàlla donc di si ñëpp parce que gis nañ ne Nioro fii moom action sociale moom mën nañ ko sociale moom mën nañ ko wax dëgg yàlla parce que gis nañ weeru y' a pas mal d'autres associations yi nga xamante ni tey ñu ngi fi te ñu ngi def lii di si woo ñëpp nag képp ki nga xamante ni tey jii nii yaa ngi ñooro wala yaa ngi feneen te war ngaa mën a jug tey nga dimbale ñi nga xamante ni tey loxo jotu seen ginnaaw. Mm. ay activités yi am na yoo xamante ni tey mu ngi suñ kanam parce que chaque événement rek dañuy def activité dañuy def activité comme ni nga ko baaxoo def parce que mouvement bi moom loolu moo ko tax a jug quoi nekkul mouvement bi nga xamante ni tey dañuy politique wala dañuy def leneen wala dañuy def leneen ñun wàllum social la ñu dox. chaque instant activité bi bu paree am na activité bu ñu siy teg incha allah. man maa ngi tuddu Ndeye Penda Diagne nekk vice présidente du mouvement Espoir de RIP. Euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla euh, ñu ngi gërëm waa mouvement bi yëpp wax dëgg yàlla lii doon loo xamante ni yombul parce que ku nekk bàyyi na say yitte bàyyi lépp la nga doon def ku ne xam na ni ndogoo àll neexul mais bàyyi nañ lépp lu ñuy def daal di ñëw fii nii. ànd ak ñun ak malaat yi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak malaat yi wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital bi fii euh, ñu bokk ndog bi doon na lu nga xamante ni euh, lu ñu rafet loolu bu baax a baax a baax. li tax ñu ciblé hôpital parce que ku nekk xam na ne yore malaat hôpital daa métti amee woo ko koppar euh, amee woo ko mën-mën ba nga yore hôpital yore kii malaat hôpital di ci génn parce que même bu dee yor nga xaalis sax sa xel maanaam du daal sax doo tala lekk. donc fii am na ñu nga xamante ne ñu ngi fii amaana yore nañ ko mais bi ñu mën a bàyyi seen malaat génn di jënd ay lekk donc suñ ñëwee tey indi leen ko dañuy jàpp ne dañu ko war a mën a indi te ñoom war nañ ko war a mën a soxla te sant yàlla bu baax a baax ñoom gis nañ ci seen bopp te ñun loolu lañ ci doon loolu lañ ci doon wut daal ginnaaw loolu tamit euh, ñu ngi sant euh, bon volonté yi benn ci directrice ma dem Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax parce que chaque année mu jàpp ci dugal ci loxoom wax dëgg yàlla bàyyiwuñu benn yoon. en même temps aussi ñu ngi sant DJ Paco ndax chaque événement dina ñëw couvrir ko bàyyi yitte bi muy def yëpp ànd ci ak ñun te xaaru ci lenn. mel na ni instant yi moom dafa bokk ci mouvement bi ñun membre ci membre mouvement bi lañ ko lañ ko jàppee di gërëm tamit suñu marine bi madame Mariama Diallo si ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm tamit toute l' équipe espoirdri parce que li yombul yombul ñu def lii nii parce que euh, bàyyi nañ lépp lu nga xamante ni dañ koy def am na ñoo ne dañuy jóge koo dëkk ba dëkk paas ñëw juste pour événement bi sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax parce que gis nañ ne réussir na